Cheikh Issa Sall, ancien DG de la Caisse des dépôts et consignations. Donc je suis venu euh, euh plainte contre le site Sans Limite parce que vous l'avez vu hier, ils ont euh, publié un article portant sur euh, des prétendus euh, détournements de baux falsifiés, d'entreprises euh, écrans et je ne sais quoi. Le seul but de cet article-là, c'était de ternir mon image, de ternir mon honorabilité, ce que je ne vais pas accepter, tout simplement parce que euh, lorsqu'il s'est agi pour nous d'apprendre, on a été à l'école et on a appris. Lorsqu'il s'est agi pour nous de travailler, on a bien travaillé et je suis euh, le premier Sénégalais à avoir un satisfecit de l'ARMP par rapport à l'exécution des marchés publics. De 1960 à nos jours, au niveau de la CDC, je n'ai fait que six mois. Ce ne sont pas ces six mois-là qui vont ternir euh, la carrière que Dieu m'a permis d'avoir dans l'administration sénégalaise. Mais je vais avertir euh, en tout cas tous les, les, les, les hommes honnêtes pour leur dire que ce monde-là a changé, que ce Sénégal-là a changé. Actuellement, tous les hommes honnêtes sont en danger parce que le chantage a pris le dessus sur tout. La méchanceté, la médiocrité, la désinformation et on utilise les réseaux sociaux qui devraient nous permettre de booster notre croissance, d'aider les jeunes, les apprenants à accélérer le, le rythme d'apprentissage Mais malheureusement, on utilise ces réseaux sociaux-là pour ternir l'image des de notre Donc pour cela, j'ai décidé de porter plainte pour que euh, s'ils ont vraiment des, des, des, preuves par rapport à leurs allégations, qu'ils mettent ça devant le juge et que le juge soit euh, vraiment le plus rigoureux possible pour appliquer la loi euh, de la manière la plus rigoureuse possible. Mais s'ils n'ont pas de preuves par rapport à ces allégations, que la loi vraiment également soit appliquée dans toute sa rigueur. Parce qu'il ne faut pas permettre à des gens d'utiliser le chantage pour arriver à leur fin. Tous les hommes honnêtes dans ce pays-là sont actuellement en danger et ça, il faut que tout le monde le sache. Euh, si vraiment euh, mon seul tort, c'est de refuser de signer des conventions de 50 à 100 millions pour des hommes qui vont l'utiliser pour aller à Paris et faire la noce entre hommes, si c'est ça mon seul tort, je vais continuer à refuser de telles pratiques parce que la CDC n'avait pas ces moyens-là. Et même si la CDC avait ces moyens-là, ces moyens ne sont pas destinés à financer des voyages de noces entre hommes. Ça, je ne le ferai jamais. Donc, euh, je prends mes responsabilités aujourd'hui pour venir euh, porter plainte pour diffamation contre le site Sans Limites et ses responsable waaw comme euh, ni ma ko waxee woon démb ci sama page Facebook dama ñëwoon tey pour déposer une plainte benn situation direct maa ngi koy déposer nag contre euh, site Sans Limites parce que ku nekk gis na démb article bi ñu bind ci man euh, wax ci ay wax yoo xam ne amul bopp amul genn wax yoo xam ne lépp. ci ginnaaw dëgg la nekk wax ay détournement wax ay ay faux baux ak yoo xam ne vraiment même article boo ko liiree amul bopp amul genn deuxièmement responsabilité wu signé article bi sax euh, doo ko ci gis troisièmement ils n'ont même pas pris de temps euh, ñu saisir euh, ki nga xam ne moom la ñu bëgg bind si moom pour laaj ko au moins nga xam ne loolu def naa si seen métier bi loolu la ñuy jëkk a jàngale pour laaj ko lan moo ci xalaatam avant ñuy publier waaye xëy rek pour yàq gor pour yàq deru nit pour yàq vraiment liggéeyu euh, doomu aadama nga xëy rek créer say wax yoo xam ne xamoo fu ñu ko jëlee ñu def ko si net bi mu wër àdduna bi ba loolu moo tax tey jii ma ne lii moom bëri na yu yu ma doon traversé yu mel ni ma mën a bii duma ko bàyyi bii damay ñëw ma porte plainte def citation directe pour que justice bi nga xam ne eh, ñu ngay def ay assises fële Euh, di wax modernisation di wax indépendance am ñu am yaakaar si moom bu baax parce que euh, masoon nañ euh, bokk si ñi nga xam ne ñoom ñoo koy animé ñu jàpp ne bii tamit dinañ ko traité si lu mu gën a gaawee pour que ñu feeñal dëgg ñoom seen preuve yi ñu am vraiment si détournement yooyu yëpp nañ ko wane lu siy dëgg na yoon def li nga xam ne moo ci war bu fekkee jël naa si un centime nañu def li ci war yëpp ba ma delloo ko ba mu mat sëkk waaye bu fekkee ne indiwuñu preuve tamit na yoon def li nga xam ne moom moo ci war yëpp mais may avertir gor yi nag ne leen Sénégal actuellement fii mu toll képp kuy gor yaa ngi ci danger lii ma gis nii muy ñëw gor yi yéen ñëpp am ngeen problème waaw parce que bu fekkee ne nit day ñëw ci yow demande la convention cinquante million wala cent millions nga ne lii mënul nekk mun a tey ma rey te 50 millions wala 100 millions yooyu boo ko ko joxee soxla doyewu ko lu dul dem Paris di si noos entre góor vraiment loolu moom maanaam bu fekkee ne loolu moo tax euh, ñuy attaqué nit ñi di leen wax yoo xam ne naka su dul noonu la maanaam góor yëpp actuellement ñu ngi si danger waaye ñun nag dañoo dawul dañoo daayul nous sommes kit avec notre conscience bi ñu waree liggéey liggéey nañ bi ñu waree jàng jàng nañ bi ñu waree joxe lenge dañ koo joxe si nu mu gën a rafete ba pare nag génnuñu dëkk bi demuñu fenn ñu ngi fi toog bu ñu xëyee di liggéey di dundal sunu njaboot comme ni ñu ko sunuy wéyjur euh, maanaam euh, dénke woon yare ñu ko ba ñu jaar si ba ak si fii waaye daal képp kuy gor si dëkk bi di Sénégal actuellement yaa ngi si danger parce que chantage bi métti na soxor gi métti na wax lu dul dëgg bi métti na iñaan gi métti na te dal lay laaj loo xam ne objectivement mënuloo ko rek ñu ne tey ñu rey la te man nag vraiment cinquante millions yi wala cent millions yi ma jox nit mu dem Paris di ko noose entre góor loolu vraiment man loolu amuma ko te loolu kenn mënul fexe ba ma def ko bu dee loolu nag moo indi yu mel nii yëpp kon yu mel nii après xam naa dina bëri maa ngi leen di gërëm baax di leen